alors tey nga ñëw Soirée Coumba Gawlo lu waraloon say tànk fii seen relation. ah li waral sama tànk mooy Coumba Gawlo ko na xam ni sama jarbaat na sama jarbaatu lànk la doon sama xarit lu ma xewle mu teew donc bu xewlee man maa war njëkk teew. mooy album bi mu génne nga xam ni vraiment. création la boo xam ni bu raar la mu xalaat ci rythme Sénégal yëpp fii ba Fulaadu fii ba Casamance fii ba euh, Fuuta génne rythme yoo xam ni mooy moom la Sénégal am ci lu rafet loolu même bu woon sax li ma bokk ak moom loolu rek déjà lu nit war a ñëw déglu si la ndax loolu dafa am solo. album ban morceau moo la ci gën a marqué boo xam ne. non bi ma ci gën a marqué mooy bi mu naan Sénégal réew mi ñoo ko moom bu ñu ko yàq boobu mooy surtout nag ci contexte bi ñu toll nii waaw morceau boobu mooy morceau man bi ma ci gënal. ci contexte bi politique bi euh, morceau yi génn na tey ñaari morceau génn na boo xam ne dañuy clash Macky Sall benn bi répondre la lan nga ko gisee morceau. indexé le président. ah mooy ay saay saay ak yooyu nga ko ah non loolu c'est normal nag xam nga aussi. Euh, démocratie réew mu mu am aussi bu demee ba période bu mel nii am faaw coo am faaw am faaw xuloo am faaw ñii xëcc fi xëcc fi c'est normal loolu pour man vivacité démocratique la àdduna noonu la tëddee aussi parce que li ñuy xëccoo aussi mooy li ëpp solo pour mooy réew mi donc c'est normal mu am passion am xëccoo am ŋaayoo am voilà li am solo rek mooy loolu yëpp na rester. ci cadre gentleman cadre loi et bu lii lépp jeexee le 25 février wala après ñëpp daje waxtaanaat ku réew mi kon ne dundu dundam mais loolu c'est normal. ñu am président boo xam ne euh, ku ko def mu tontu la dem gis nañ ko mu dem Guédiawaye inauguré benn mosquée déjà di du clash opposition bi est-ce que à un mois. président la mais candidat la aussi xam nga aussi faaw ñu def. Euh, glissement sémantique boobu faaw ñu def ko président la mais candidat la candidat nag dafa am programme am am ay adversaire am gars yi di ko clash mu leen di clash c'est normal xam nga mm, dafay toll foo xam ne aussi bu toogee ci président cap. propagande bi ñuy tere tamit mu ngi koy def. ñëpp ngi propagande fi ñu toll tey nii euh, nit ñi ñu ngi doon meeting c'est normal waaw ah, période campagne électorale lañ nekk ñëpp ngi ñëpp ngi propagande.